pont de l'émergence bi nekkee ci Dakar ñu ko daan wax pont Sénégal 92 ay doomu aadama yoo xamante ni dañoo faatu ba tàmbalee yàqu lañ fa gis ci benn canal bu fa nekk loole nag askan wi biñ ko nemmeekoo lañ woo ñi nga xam ne ñoo di takk der yi waaye sapeur pompier ñu ñëw ci bërëb bi ànd ak ñi nga xamante ni ñoom la seen xam-xam màcc ci wàll wi ngir ñu ñëw def constat yi waaye jël néew yooyu nga xamante ni moom lañ fa fekk lu ne mel nag mboolem askan wi génn ñëw seetaan si woon. ñii nag lan moo leen faat ba dugal leen ci biir kanaal bi di laaj boo xam ne ñu bëri ñu koy samp waaye buñ deltoo ci ginnaaw ci weeru novembre bi ñu weesu am na benn xale bu jigéen bu ñu agressé woon ci pont de l'émergence bi ñi nga xam ne ñoo ko agressé woon bi leen askan wi dàqee am ñoo xam ne dañoo daw dugg ci biir kanaal bi ñu daal di fay taal ay pneu ñu delsiwaat ci image yooyu le maire bi dafa tourné bi muy dox ci kaw télé bi nii dem mu ngi yor benn ordonnance ci loxo bi ak benn mbuus bu weex léegi ci la ko bi dogaale bi ko booy bi dogaale daal di ko bu beneen booy bi ñëw dal ci ginnaaw booy a wuy sama ndey booy bi moo ko jam bi mu ko jamee maire bi moo miir daanu bi mu nag je pense am na ñaari blessure ndax parce que damm na ci loxo damm na ci tànk encore xamuñ nag deena wala deew ndax parce que moo ko jël ci justement ci heure boobu ñun li gis mooy que daanu na ci biir bi mu nag sapeur moo ko jël xam nga léegi booy bi ñu leen dàqee ñaar ñi benn borom moto moo bëkk ñu daanu kenn ki daw jóg daw beneen gaañ bi padd ko mu daanu ñaar ñoon di daw di ñëw nag léegi ki ci lañ ñaar ñoo ñu yóbbu leen ci des daw dugg ci laaj bi nag moom mooy néew yi nga xam ne moom lañ fekk fii ci jëm yi nga xam ne dañu leen wooye ay fàqmaan ndax pën yi ñu fi taaloon moom moo leen faatam déet loole enquête bi dana ko leeral waaye ci fàttali nag point de l'émergence nekk na bërëb boo xam ne saa su ne day bëri fàqmaan yu fiy nekk ñu fi agressé ak 15 loolee saa su ne askan wi di ko ñaawlu waaye ba léegi amagul saafara